jërë ngeen jëf ñetti tonnes yi cocaïne yi madonub Sénégal jàppoon l'observateur moom la xëy ngànk ci xëtamu njëkk enquête ba ñu cay def fan la toll la mu feeñalagum journal bi mi ngi ñu koy wax pil yéene kay bi fukki nit yañu fekkoon ca boto ba jàppale leen ñooy ñan l'observateur mi ngi ñu jox seeni identité ñoom ñëpp ba tegal ñu ci ne defeere nañu leen démb ba ñu leen di jàpp fekk nañu ci ñoom fukki téléphone portable ak juróom-ñett sa amoon na ca ñeenti téléphone satellitaire benn gps ñaari ordinateur portable akub xaalis am na ci koo xam ne bàyyam président la ci réew bu nekk ci sous région bi l'observateur nee nañu kii jiite opération millions yi am na keneen kuñ ca jàppaat muy troisième arrestation benn waaye bu ñu naan El Amadou Guissé di bijoutier ay faux yu toll ci ñaari milliards libération ne nañu moom la ñu jàppati ci Kër Massar de recherche moo ko jàpp ñu ngi ko jàppee ci benn l'homme des affaires gambien bu tudd Mor Touré mu àndoon ci ak benn doomu Sénégal bu ñu naan Babacar Ciss journal mi ñu jox xibaar bi mi ngi ci dolli di ñu wax ne diggante teg nañu loxo ay brigade recherche bu Kër Massar teg loxo ñoo ngi ko jàppee ci benn businessman ak benn technicien en génie civil ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi ñu garde à vue a defeere war leen ci coowal faux billets loolee toll ci milliards moom la Ousmane Sonko doon laaj état bu Sénégal ci recours bi mu yóbbuloon waa cour de justice bu CEDEAO journalisé ko moo ñu jox xibaar bi ci xët mu njëkk ci xët mu njëkk premier ministre Amadou Ba keroog la woon ci géejawaay ba mu doon daloo maanaam inauguré la maison des associations ak la maison de la femme bi ñu tuddee Mantoulaye Guène ci géejawaay mu di ñaari infrastructure yooyu 668 millions la ñu ko defare journal Tribune ñu waa Promoville ñoo ko def loolee ginnaaw juróom-ñetti kilomètres yi yoon ya ñu tabax foofee ca Géejawaay hommage ji njukkeel li président Macky Sall defal démb président Abdoulaye Wade moom la journal Témoin ñu xëye tey cim ndaje mu dajale woon langu libéraux yi ci Afrique ca Europe ak ca Caraïbes ca la woon Le Quotidien nañu libéraux yi ñoo ngi gént Wade ba léegi ne xalaat ak yéene bi mu amoon moom borom a bureau d'Afrique et d'Europe la tudd président Macky Sall moo ko doon ubbi fa la sàkkoo ci kilifa yi ci Afrique ñu xeex lu ñu man populisme xeex radicalisme xeexit extrémisme violent waxam joojee mu fa wax ni ko journal Sud Quotidien tudde mooy l'appel de Macky ci jamono joojee moom Macky Sall Vox Populi nee nañu huiliers yi ci réew ngi koy woo ne kilo gerte bi ñu jàpp ci 280 francs la ñu gis na arrangé wu leen ba tax ñu tàmbalee sàkk yeneen i pexe ci exportateur étranger yi mbir a ngi étrange ci journal Les Échos directeur hôpital Roi Baudouin bi yenn yi di tuumal ne dafay jaay doole wax na lu garaaw ci yéenekaay yéenekaay bi ubbil journal bi Cheikh Mbaye Seck directeur général bu hôpital Roi Baudouin nee na ci l'hôpital ba am na fa ñoo xam ne 9h la ñuy xëy si wàcc 13h gis nañu ci l'hôpital ba ab médecin boo xam ne talaata ak alxames rek lay liggéey si Cheikh Mbaye Seck ne ci l'hôpital ba gis nañu fa benn xale boo xam ne dañu ne woon dafa faatu ba jël ko yóbbu ca morgue ba juróom benn waxtu ginnaaw bi maanaam 6h après ci lañu dem ca morgue ba fekk xale